parce que emploi des jeunes dafa am solo trop trop trop té loolu itam ñu ngi koy xaar ci mom ñu ngi xaar aussi réalisation yenn bitumage yoon yi nga xamné tay muy yoon bi nga xamné mo dem jaar digënté coupentum jaar euh, Mereto dem ba Makka Koulibantane dem ba kusanar yoon la bo xamné bu baax la am yoon bo xamné aussi day dem ba euh, euh, comment dire Bamba Thialène yegg ba Kayen yoy yoon lañu xamné ba frontière Gambie yoon la dem bi yoon jógee fi ba Payar aussi pour desservir aller vers le Ferlo loolu tam yoon la bu am solo mais aussi ñu ngi xaar mu gëna ñi jappalé deug la mu ngi jappalé mais bëgg nañ mu gëna jappalé aussi les jeunes maires parce que les jeunes maires de la mouvance présidentielle tay ñom seen taxaway inshallah allah ci biir accueil bi danañ ko gis té chaque fois non lañ dan def té mobilisation bu exceptionnelle bu triomphale la def boo xamné ne euh, yaakaar naa kenn mësu ko gis paré nañ ci lool té population engagé nañ

gën ko wan ne ñun doyaluñ bu boobaa dana am courage bu doon toogaat gën ñee jàppale. lii daal vraiment mooy suñu cri de cœur ñun ñëpp mobilisé wu nañ duñu bàyyi dara incha allah charrette fas oto ay bus lépp danañ ko mobiliser ay nit yóbbu ñi xam ne président moo yore mbir mi moom la mbooloo mi àndal moom la nit ñi jàppale.